est-ce que ki doon wax Karim la man c'est ça ma grande. mais bizarrement pourquoi les gens se demandent ndax ki doon wax Karim la man pourquoi nit ñi di ah, ma toog jiite ay réunion fekk yàlla xam na ne du man. mën nañ ma waxloo mën nañ ma waxloo ma toog ci émission bi di wax. Mm. sama voix génn may wax discours boo xamante ni possibilité wu vérifier ko am na oui mais possibilité vérifier ko gisee Karim di wax gisuma dara ay cëram nit mënul wax ba pare say mbagg dara yëngatuwul. dama naan est ce que kiy wax dañ ko monté wala qu'est-ce qui léegi yow sëñ Abo yow mi bokk ci parti bi yow laaj naa la wax ji ki doon wax Karim loolu du Karim sëñ Abo parce que parce que ëllëg dina leer de toute façon ëllëg dina leer ah, Karim sax mun na ñëw ëllëg leer yaakaar am na ñaari question yu ñëw waaw ah. mais mooy les les deux cas mm-hmm. yu journée yi mm-hmm. la sortie de Karim Wade mm-hmm. d' abord li ma njëkk wax mooy ñun amuñu cas ok Karim n'est pas un cas lu jëm ci wàllum élection présidentielle yi okay. et c'est tellement dommage nag des fois ce qui se passe dans ce pays mm-hmm. et am na seen benn mbokk journaliste boo xam ne wax na ko bërki démb mm-hmm. mooy on note euh, actuellement que du ñëpp nag mais une de la presse boo xam ni dañu nekk di def propagande nit mm-hmm. muy le candidat du parti au pouvoir mais aussi saa yu ñu xëyee xool nañ la ñuy dénigrer ñeneen ñi nga xam ne ay potentiel candidat lañ mm-hmm. te loolu def ci bokk ki nga xam ne moo nekk Karim Meïssa Wade et damay profité ci ni nga xam ne mooy occasion bi ngeen ma may pour wax les militant et les militants du parti démocratique sénégalais ak sénégalais yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ñuy seetaan que bu ñu déglu yenn parti presse boo xam ne dañuy eh, xëy eh, eh, di wax naan Karim Wade ak ay double nationalité ay quitus fiscal dafa am mission bu ñu nekk ñoom di ko def pour décourager loo leen pour gëmloo leen ni Karim Wade du bokk ci élection yi mais dama leen di wax fii ci 7TV laa leen di wax incha allahu rabbi Karim Wade dina bokk ci élection présidentielle 2024 du double nationalité du quitus fiscal moo koy tere bokk ci élection yi te mm. incha allahu rabbi dinañ ñëw dinañ battre campagne te dinañ gagné li nga xam ne moo nekk élection yi donc pour dire que ni li nga xam ne moo nekk ci cas bi ñuy wax mooy ñaari question yooyu ñuy wax yëpp pour ñun c'est un boo xam ne ñun dépassé nañ ko. Hmm. depuis deux mille dix neuf. Hmm. beneen bi ci des le nouveau code le nouveau code électoral réglé na ko. Hmm. peut bu ñu duggee ci biir débat bi dinañ ci dellu si waat. par rapport ak li nga xam ni nag moo nekk. <laughs> ndax ki doon wax Karim Wade la. je le disais dama ko doon wax a à notre de communication Nafissatou Diallo ñuy waxtaan fekk muy ree mu ne ma nee nañ kiy wax. Ah, eh, eh, intelligence artificielle la mu a ma a ah, comme de Karim am na doole bu dee am na ay nit. ak ay xarit yu am doole jooj ba mun ko defal intelligence artificielle mm. ah comme Karim yaakaar na am na doole mën a ko Karim dina ñëw ci biir réew mi taxaw sax di wax ñu ne non non du Karim robot la robot la parce que dafa am yu bëri yoo xam ne ñoom dañ ko wax dañ yàgg ne Karim du ñëw Karim du wax Karim du def lii Karim du bokk Karim afi Karim wax ñu ne léegi Karim Karim wax ñu xool lu discours analyse ko ci côté yëpp amul fenn fu ko mën a jaar dañ ne woon Karim xamul jafe-jafe askan bi Karim ñëw wal leen ni man maa gën a xam jafe-jafe askan wi ñu ne Karim xamul lu Sénégal yi du dund mu ñëw wax ak ndaw ñi wax ak immigration clandestine bi nga xam ne tey lu bëri ci ay ndaw yóbbu na leen. Mhm. tey wax ak ni nga xam ne moo nekk dund gi. jafe yi am ci biir réew mi wax pétrole bi wax gaz bi wax li nga xam ne mooy Sénégal ëllëg wax fan la bëgg yóbbu Sénégal wax bu yoree Sénégal nan la ko yore ñu xool nag discours bi ñu ne ah amuñu fenn fuñ ko jaar ndax discours bi moom nit mënu cee wax leen ñu ne nañ ne du Karim intelligence artificielle laak ay robot laak ay yu kenn xam ñu bëri na da leen a bett xam nga ñu jékki-jékki rek fëgg la ci ay nelaw rek yee la jox la benn information des fois di jaaxle loo xam ne xaaroo ko woon te ñoom ñëpp dañu woon Karim du wax mais toujours bi nga xam ne Karim du ak jour bi wax bu boobu làmb juree moo am <laughs> ñu war a bëre mais jour boobu la Karim Wade jël na wax léegi réew mi ñëpp naan lan la war a wax lan la war a def mu génn def un discours rassurant un discours convaincant mm. un discours boo xam ne discours fédérateur discours boo xam ne pour rassembler woowaat Sénégalais yi ci fi nga xam ne fa la réew mi toll ngir ñu ànd nekk benn ngir liggéey suñu réew mm. amuñu fu ñu koy jaaralee ñu ne intelligence artificielle la si sa mm. Maria Birame Karim dina ñëw ci réew mi wàcc taxaw ñu wax ñu ne robot la du Karim moo ñëw wala ah, beneen nit la ñu andi quoi incha allahu rabbi léegi rek mu léegi incha allahu rabbi ah gis na ni ñu ni ñu def ba xëy ne leen Karim Wade mu day wax tey mm. noonu la ñuy def ba xëy ne leen Karim Wade te bis sàngam la ñëw bàyyi biraam le PDS est un grand parti vingt six ans d'opposition lañ def suma doyen mi xam na li may wax bëri ay xeex yu ñu xeex ci réew mi xeex ba jot nguur ko douze ans xam lan moo ñu ko ñàkkloo xam nan la ñuy def bu utu juwaat nguur googu xam buñ ko utaatee nan la ñuy def ba mën koo téye te loolu moo bokk suñu stratégie hmm. te bu ci nekk waxtu wi saa bu jotee dinañ ko def étape par étape one by one la ñuy doxalee suñu stratégie ba jël li nga xam ne moo nekk réew mi et que bis bu Karim waree ñëw incha allahu rabbi yàggatul gars yi ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci préparation yi def nañ suñuy comité électoraux désigné nañ suñuy mandataire ñu ngi désigné suñuy plénipotentiaire di préparer li nga xam ne moo nekk élection yi préparer benn accueil boo xam ni accueil chaleureux accueil populaire historique incha allahu rabi. bu ñu ca jógee daañu ca yóbbu bu avancé kon date boobu c'est c'est en tout cas c'est fausse. ah c'est une ah. fausse date <laughs> non c'est oh, man sax ay nit interpellé nañ ma ci mais li wóor te wóor. le PDS c'est un grand parti wax naa ko am nañu li nga xam ne moo nekk ay foo xam ne moo moo ñu officiel. loo xam ne bu bu waree am hmm. di ngeen gis un communiqué officiel wala di ngeen gis kàngam yi nga xam ne ñoom ñoo yor parti bi def déclaration wax leen na leen Karim Wade bis sàngam lay ñëw incha allah xam nga PDS gëj na dem élection ñu ngi gis ay coalition PDS di ci bokk di ko jiite sax d'ailleurs mais gëj na dem élection euh, élection yi di ñëw est-ce que da ngeen fas yéene defaat li Wade defoon en mille créer benn bolop bu mag a mag a mag a mag te loolu je pense que bu dee loolu ngeen di waajal waxtu bi waroon waroon na fekk ñu commencé gis euh, euh, contingent bi ak seen doole. <laughs> wala wala wala wala dafa am beneen stratégie boo leen fas yéene teg parce que ñu ngeen àndaloon ñu ci bëri fi ñu toll dañuy demal seen bopp. ñoom Mamadou Diop Decroix ñoom Mamadou Lamine jàlloo ñi ngeen bokkaloon coalition wàllu ñu ci bëri fi ñu toll nii ñu ngi wutali seen bopp. comme ak PDS ñëpp xam nañu y a une ñu bëri fekk nañu Macky Sall. Mm. qu'est-ce comment vous comptez réorganiser opération ñibbisi bi toll <laughs> mooy bi daal mooy kenn ñibbisi déggatuñ leen en plus ah. gëjuñu dem élection. Hmm. élection yi fi jee am mu élection locale yi participer nañ. élection législative yi participer nañ benn élection la ñu participer wul. mu nekk présidentielle 2019 yi. Hmm. mais wax nga ci lu jëm ci wàllum coalition. danaa la ñun dañuy liggéey te boolewuñu ak wax Karim ci boppam moo lancé boppam coalition bi muy coalition Karim. 2024 muy cas 2024 bis bu yàlla sàkk ñu ngi seeti ay nit mhm. ay nit ñu ngi def déclaration ci ñoo xam ne ay candidat lañ woon sax renoncer à leur candidature ñëw di jàppale ki nga xam ne moo nekk Karim Wade bëri na ñoo xam ne ay mouvement de soutien lañ ay société civile lañ nekk wala lenn mhm. ñu ngi def ay déclaration ñëw di jàppale Karim bëri na ay responsable yoo xam ne bis bu yàlla sàkk ñu ngi dem di seeti ji ay nit di waxtaan ak ñoom ngir ñu rejoindre la coalition Karim Wade. gis na ñi nga xam ne ce sont des frères et yu nekkoon parti démocratique sénégalais ñoo xam ne à un à un moment éloigné wu noonu woon un tout petit peu parti tey ñooñu ñëpp ñu ngi dellu si waat ñibbisi nañ pour préparer li nga xam ne loolu moo nekk élection yi nga xam ne moom la ñu jëm muy élection euh, présidentielle 2024 yi donc ñun lépp loo xam ne rek daf ñuy permettre ñu gagner élection yi ñun PDS ñu ngi ci parce que dama ñun fi ñu jaar ak expérience bi ñu am ak vécu bi ñu am élection mënu ñoo jaaxal et xam nañ nan la ñuy def ba gagner élection te ñu lool ci loolu la ñu nekk parce que nous avons un candidat qui a le meilleur profil ah. qui a le meilleur profil tey ci ñi nga xam ne ñoom lañ déclaré ni ñoom ñooy xëccoo ah élection présidentielle damay bañ seen damay bañ CNRA woote fi dindi bu ñu bu mais aussi mais aussi mais aussi nous avons parti fort un parti boo xam ne dafa am une base solide ñun PDS depuis 78 ba jamono ji may wax ak yow bi ñu njëkk am suñu premier groupe parlementaire c'était en 1978 ñu première élection ñu participé ko am 18 députés boobu ba tey mënuñoo wàcc 500000 voix. ok donc ñu am électorat bu su li ci des mooy li ci des mooy apport personnel lu bi Karim Meïssa Wade. Ah. ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale ñun ñu dem jëli ji élection yi. wax nga ko sànq am na ñoo xam ne tey ñun ñoom àndoon nañ hmm. Modou Diop Decroix yaakaar naa. daa kii élection législative yee lañu ànd mais ñun dañuy ànd ak nit ànd boo xam ne ñun ay démocrate lañ dafa am contexte bu taxoon ñu ànd mhm. c'était les élections législatives amul lenn lu leen tunk wax leen ne leen que ni élection dañoo war a ànd ñu ak ñoom mhm. et que ñoom tamit dañuy dem bàyyi la ji seen waar mhm. ñu ñu dem bàyyi la ji suñu waar su boobaa bu ko defee ñu dem jëli ji li nga xam ne moo nekk euh, moo nekk ndam li te gëm naa ne ñun ñu jël thème bi parce que dañoo gis ni PDS depuis un certain temps ba mu bëggee duggatul ci combat opposition chaque fois yéen a ngi am ay prétexte Aminata Touré moo ñu defoon lii bi ñu toog ak moom nangam nangam depuis boobu yéen a ngi def benn yéen a ngi seen benn léthargie même seen i discours aboo boo seetloo dañu leen di orienté na tirer plus sur Macky ni sur le régime en place en attendant ngeen régler taawu Karim. non euh, Birame loolu damay wax que ni loolu amul gis nga le Tafsir Thioye dafa am lu mu doon wax mu ne PDS. responsabilité bi nekk ci ñoom. Tafsir Coy bu taxaw. Tafsir Coy. bu parti mmh, démocratique bu sénégalais porte-parole ah, ah, ah PDS. Ah, ok ok mu ne PDS dafa am responsabilité bi ñu am ñeneen ñu bari amuñu ko moo tax suñu toxal suñu suñ suñu doxalin ak suñu taxawaay mënut a bokk ak ñu bari. Birama nous avons fait douze ans ci opposition 2012 bi ñu wàccee ñun ñoo njëkk a nekk première victime président Macky ñu traqué ñu. ñu bo boobu on était ci combat bi kenn jàppalewuñu hmm. ñu traqué ñu ñii di dem gendarmerie ñii di dem prison rëbës ñu téye suñuy vingt cinq personnes ne leen doon génn jël suñu candidat exilé ko exilé ko ñuy xeex di xeex di xeex di xeex li ñu jaar ak PDS ak li ñu daj ak le président Macky Sall hmm. bëri na parti yoo xam ne bu ñu fa jaaroon nag ñoom kenn dootu leen déggati mais dañoo xeex xeex ba ñu génnee Karim Wade jël ko exilé ko forcé exil forcé exil forcé pendant sept ans mais le retour n'est pas forcé mais pendant sept ans je reviens mais je pendant sept ans ñu génnee ko réew mi Karim ne génnee ngeen ma réew mi taxul ma dem mu dem continuer di xeex su le plan international des décision de justice 14 décisions de justice favorables ko mhm. PDS ñu continuer di mener suñu combat di continuer di xeex suñu xeex ba tey li nga xam ne moom moo nekk ñu jëm ci élection présidentielle Babacar kii Birama ñun duñu parti yóbbaale ma ñun dañoo nekk parti bu xam suñu bopp mhm. am lu ñuy bañ gis nga bu ñu d'accordee dañ naan d'accord nañu suñu d'accordul dañ naan d'accord uñu ce n'est pas parce que tey dafa am lenn loo xam ne d'accord uñu ci que les gens vont dire que ni oui na jege le président Macky Sall na jege régime bi ba loolu day def pression ci PDS pour mu mën a delluwaat gannaaw non non le PDS ne fonctionne pas comme ça suñu d'accord dañ naan d'accord te kita gis nga li yi nga wax yooyu yëpp bu ci nekk mën nañ la cee wax lan moo tax d'accord ñu te bu ñu la moo tax d'accord nit nit mënu koo dindi parce que gëm nañ suñu bopp xam nañ lu ñuy def xam nañ fi ñuy teg suñu tànk te xam nañ nan lañuy def ba am. d'accord ba ci kanam.